jàpp ji daam muy dëgg jàpp yàlla tudd turam ngeen di tudd yàlla jàpp ci daam muy dëgg jàpp yàlla tudd turam muy ngeen di tudd yàlla borom tuba di wa mag naa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 borom Tuuba yaakaar yi bëgg naa la waaye du tee mën a ko namu naa la borom Tuuba yaakaar yi bëgg naa xam nga ni man xam nga ni man jooy cofel ca laa sax sa xol di jooy sa bët di tooy sa yaa tax di leen wi yëkk leeram gi lu jullu lay xamal ne xam ji te lii ma wax ak a soreek ay njort xaqul yaqiinu laa ci am luy fortu te lii ma wax ak a soreek ay njort xaqul yaqiinu laa ci am luy fortu may

nawleem amul Cheikh Ibra kenn doqand ci pëndi jéegoom waaju ko soobu fënd kenn mës gis ku mel ni moom ci diine amul ci bii daani ak soo daani ab sañ sañam masiifu ko sañaale ca Adama ak Muhammadul Kamali lim sëf ci mbóot ba noppi daat ni yomb kuñ ko sëfoon ca góor ña dog xam ndaggu kenn mës da gis ku gaddu lii mu gaddu te mboole seen wali yang ni joddu te alkuuñ te sankuuñ te réeruñ ma Ibra Faal mook ñu ko topp sooyuñ si Ibra Faal góor ñi payam da yomba ku mat ndaw mën la laal jëgën ba jëgën ba amul ku lamboo martabaam ci yàlla ci yàlla tiñam ba dis na góor ña góor um um la ci jooja waay aw jooja waay maw lëmbul ca yàlla amuna xayrul xayrul xayrul ne sëpp saw ma ibra faa la yéeme la gis wi melokaan moo tiime moo tiime mooy ngëm gi tax mu gëm di dox ci dëgg di dox ci dëgg waaju ko noonu di nga rus ba sëgg di yàlla ne ku noonu lamp bon naa ku wet nu muy demee aljanna aljanna ndam yàlla ne ko noonu lamp bon na ku weddi ngëm nu muy demee aljanna aljanna mooy nattuwaayu ngëm yi ngëm mbootam la ku gëm na xam ni xorom naaram la la moo wane ngëm moo wane ngëm moo jërë gëm mam lamp mam lamp mooy àgguwaay bi gën a jub moo jamp moo jamp la muy defal góor ba mu mat ba mot ba mu mat ba mot te jaariwul ci xàll wi ñu xotti ñu xotti ku mën na def ku xam na wi yoon waa ngoog ma Ibra Faal góoru jotiwul fa muy toog diine amul ku mel ni Sawru Faalu moo gëni góoru bir ku am musoolu kenn mës dégg fenn aw doxinam mooy royu way bu jubbi ma Ibra Faal si rijaalu lay abu rijaalu lay sirru lay si Ibra Faal yow rek jëf ba lagge mboolem kamal yu mag yi yaa leen jaggi góor mën jëf ba dab ko loola faat na mbuutam ma dis na góori anu sunna si Ibra Faal nuuru rijaalullah tawan wa kan iman lillahi si Ibra Faal kanziyatul ilahi nuuril huraa birru kamaalillahi ma Ibra ko gantu deena du ma Ibra Faal xol bu ko gantu deena janna ruuxam nga nëb lu nëb du dem aljanna dem aljanna ku noonu waaye yàlla lañ na roo xam nan na pasan daanu ci kam mi lëndëm kam mi lëndëm ñu nañu daam gindi ci sawru faala jalaalu kaw nu lañu kon laala te bamba lakk ñu ci xaji faala jamaalu kaw nu lañu kon laala bamba sàmm mam lamp mam lamp mu di ñu sàmm di ñu jox ñuy namp mooy sàmm boobu juróom du yooyu ñuy duruur le duñ ko fi réew li seena faa la gën le yal na ñu xaj ji faa la gën di gindi ci jëmmi jëmmam jëmmi borom barak bi bi jaay mu tabana bi taaha bi sirri la ilaha illa la aw awnuka yaa muhiim وبك نستعين قليدتها جميعة خانها محمدي حبد الكريم سمبيا رمبي يمر بمد سيق الكريم حبيب الله بكي نفعنا الله ببركاته وسمى جسب المجسوب إلى حب المعبود وثنائه على حسب القلوب تقبلها له ببركات الممدوح الحمد لله ki may xamal bu wértee di ma may xéewal ci barkeb ki mu xëy jibbal lu dooni xéewalam yéen gaa yi di leen ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu wér te ma fecc tey ay fas fasam koo xam ni xam na lii na xam ku ko xamul ma mu xam xam ku xamul day tax a xam loo ku doon li xam te di bëgg a wax day daggi xol dëgg wax jagal li jëf te ku ko wax njëriñu fi ak nu jëm mam samba jaara mbay neen mësuma leen waxi neen te ma wax du waxi neen lii wayu xut bu du neen ku daa fi way ñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat mu di ma may di fayu ay di dawi moy ci leeri mbooti ragallam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal aamun di ma wutal di ma wattul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ki ndigalam di ma yaral di ma defal di ma jariñ di ma teral def ma ma mel ni ku ñu fal ku tabbi peey ngërëmam di ma dugal fu may musal di ma fegul lu ma ku jëm ci man ak i fetal boole di gëli wëlam di ma datal ci waxi bañ bakkuma yéene jëfi bañ mu ni ko tëb mu ni suluñ daanu te tiqul fetalam di ma xàccal di ma jañal di ma tayal di ma tayil di ma ubbil wut di xeewal ma ci biiru xeñoñam nee ma yëkkat néew ma tuy wan ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu di ma may ni ma yoxoos ci biiru xolam di ma fegal pexe mu ñaaw di ma teral ren ak ki di ma teral sama gannaaw sama kanam di siru siñ bu may fajal di garabal li ma ragal di ma felal lu may musal mu teg teg yenu njoom di ma toggal di ma yakkal di ma raccal di ma sebal di ma tibbal di ma leel tibb yu ñu barkeel ko wanam na ngeen déglu ma dellooti تنتاب داوات وظاهر ذدبات جلق نقمات damay wëlbati mboolem wayi ni soodaan ba fem yépp di baatim bu jar di seetaan dama romb ku seetal mu naa ma kay ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jërul ay ngaañ ma fap jógooni ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ki ma àndal ñu dem tuuba faral jébbalu moo gën toroxu su ku ànd ki ma àndal lu lan nee xalaat bee jara àndal bu leen njaaj defal ànd bi yàlla ak sëriñ tuuba te yonnen di sa wommat nga jubulu لا باركم يا أناس توبوا وكونوا ما ذيق لو أنيبوا مهياه كبدر للكتابر أواجه على حسن ممن كتمين إلى لا لا لا إمام دام laa laa waay maam daan billa laay moodu maa amee ñang lii lépp yawaan laa laa waay maam daan billa laay dañu doon wër ku baax a baax a baax ndeke booba laa laa waay maam daam illa laa laa laay laa ilaaha góor si njànd gi njàng mi neex na lool